sëñ Maguette Bal maa ngi lay nuyu. Eh, maa ngay maître nageur euh, ci géeju Ngor waaye tamit nekk moniteur euh, ci école formation maître nageur de euh, dauphins jamono ji nañu nekk ci période tàngoor mu bëri ay ndaw yoo xamante ne ñoo ngi dem ci géej gi ngir mën fa sangu mu bëri ñoo xamante ne dañ ciy lab ba sax ñàkk ci seen bakkan pour yow lan moo waral lu ni waaw damay d'abord jaale ñi nga xam ne nii ñàkk nañu seeni mbokk ci géej gi di wax ni situation boobu li nga xam ni moom laa yaakaar ni moom moo ko indi mooy ñàkk a respecté conseil de sécurité yi nga xam ne nii ñiy fréquenté plage war ñoom moom la ñu war a respecté ak euh, tamit ñàkk présence su maître nageur yi nga xam ne nii ñoom ñoo war a sécuriser nit ñi pour ñu mën a sangu te benn problème duñu ko am loolu si bokk na ci li nga xam ne nii moom mooy indi su moo war waral situation bu mel noonu aussi euh, responsabilité ñi nga xam ne nii ñoom ñooy municipalité yi muy maire yi ñoo ngi ci parce que comme période bu mel nii nga xam ni tàngaay bi dafa teel a dugg ñu war a mën a déployer ay maîtres nageurs yóbbu leen ci plage yi pour ñuy surveiller parce que xale yi kenn mënu leen tere ñu dem plage mais da ngay fexe ba dem boobu noonu mu nekk ci dem boo xam ne sécuriser lay doon ba benn xale du am problème mhm. waaw. alors en tant que maître nageur tey jii nan ngeen di def rek ngir mën a limiter ndaw ñi. waaw li ñu def pour mën a limiter ndaw ñi mooy euh, defar ay barrières yoo xam ne nii ci géej gi benn nit du ko dépasé kenn du ko romb pour mën leen a sécuriser pour que ñu mën a sangu ci jàmm ñibbiwaat seeni kër ci jàmm te kenn du am problème. Mhm. alors li nga xamante ne nag moo jëm ci géej gi euh, gis nañ ne léeg-léeg xëy na di ngeen def ay cordes ngir mën a limiter euh, ba mën a yi tamit li nga xamante ne mooy te yi am euh, léeg-léeg ci géej gi. waaw dañuy limiter di def ay corde nañ ko def ci kaw ci profondeur bi dinañ ko def ci côté yi pour wane ni surveillance bi nga xam ne nii moom la maître bi di def diggante bii la ak bii waaye fii loo sori sori sori waroo ko dépasser donc loolu moom la ñuy def pour euh, euh, limiter nit ñi pour ñu xam ne fii waruñu ko romb comme ça ñëpp mën a nekk ci jàmm ku nekk delluwaat si kër ci jàmm. yaa ngi ma doon wax euh, démb rek ni euh, jot nga assister ci ñaari cas de noyade. waaw démb parce que dafa am euh, benn dame bu doon sangu xam mën naa fee sax mais dafa dem ba sonn mu ngi wootee ndimbal mais am benn waay bu nekkoon ci sama wet mënula fay dem di ko jéem a jàppale. bi ma ñëwee ba egsi ci ci ñoom ci laa soog a xam ni kii kat mënula fay moom mu ngi doon commencé di dugg di génn comme euh, ki nga xam ni mooy lab ni muy commencé ma daal di leen di jàpp ñoom ñaar ñëpp génne leen heureusement euh, ñoo ngi woon ci plage bi mais si sinon kon dina gën a dina gën a metti comme mën nañu wax ne double risque la tey koo xam te ne mënul fay ba pare di jàppale keneen koo xam te ne daanaka euh, ñëw bokk même situation. waaw waaw double risque la parce que koo xam ne mënul feey ni dangay dem di jàppale koo xam ne nii dafay lab loolu mën naa ko tuddee ni sax xaru la parce que du bëgg bëgg dimbali nit ki rek parce que yow leer na la ni kii ngay dimbali boo demee fa mu ne yéen yam situation wala sax moom moo lay tane li ci ëpp ci cas yu mel noonu ki nga xam ni mooy dem di jéem a dimbale sax moom mooy njëkk a lab parce que ki nekk di lab dina paniquer ba bu ko jàppee dina ko bés mu wàcc ci biir donc moom mooy njëkk a lab ki nga xam ni moom la demoon di dimbali. Mm-hmm. donc loolu moom du du du solution pour dimbali ko lab li ñu mën a def mooy jéem a woote ku koo xam ne nii xam-xamam màcc na ci loolu pour mu ñëw dimbali. parce que du ñëpp ñoo mën a ñoo mën a sauver kuy lab du du ni da mën a fay rek donc war na mën a sauver kuy lab non non waaw. dafa am euh, mhm. am njàng mu ci am ci période tàngoor bi sax dañuy gis ni euh, bëri na ay nit yuy dem euh, ci plage yi nan ngeen di def rek ba mën leen a contrôler ñoom ñëpp contrôle bi nag du yomb du yomb parce que bu fekkee ni nit ñi fréquenter plage du ñoo bëri te maître nageur yi nga xam ne ñoo leen war a surveiller seen nombre demeewul noonu aussi du yomb nit ñi aussi souvent du ñu déglu boo leen di di tere wala nga gis danger buy ñëw nga leen ci di wax pour ñu moytu ko du ñu la déglu lu ci ëpp waaw mais mais li ci gën a li gën a am solo mooy euh, ñàkk nombre bu doy pour mettre nageurs yi pour ñu mën a surveiller ñi ñëw ci plage bi yëpp waaw. Mhm. alors yéen jafe-jafe nag ngeen di jànkonteel léeg-léeg ci terrain bi. bon jafe yi ñuy jànkonteel ci terrain bi mooy comme li ma wax léegi ñàkk nombre bu doy pour la surveillance ak aussi ñàkk matériel pour dem sauver nit ki c'est vrai mën nañu sauver ak suñu loxoy kese waaye li gën a wóor li gën a dal xel mooy maître-nageur bi nga jox ko matériel boo xam ne nii bu doy la boo xam ni dina mën a dem sauver kuy lab parce que ci plage bi ba trois cent mètres ci biir ndox mi foofu la maître nageur bi domaine d'intervention foofu la yam foofu la mën a dem intervenir mais bu amul benn matériel bi mënoo dem ba trois cent mètres yaa ngi jëli nit kuy lab mhm. donc loolu daal mhm. mooy problème bi nga xam ne nii moo gën a euh, moo gën a teew ci ci liggéey bi pour que ñu war ko mën a régler muy problème mu matériel. Mmh. alors euh, jafe-jafe yooyu lii est-ce que jot ngeen ko alerter yi tamit. ñu ngi koy alerter ñu ngi koy alerte ngi koy alerter très souvent municipalité yi bu ñu ñëwee ay ay frites la ñuy indi ak euh, ay matériel yoo xam ni nii du matériel bu ñu war a mën a jëfandikoo pour dem di dimbali nit koo xam ne mu ngi lab ci biir géej. waaw te te matériel boobu aussi du millier bu nekk nga ko mën a utiliser comme boo jëlee plage bu mel ni Malika bon euh, fay foofu noonu ou bien sangu foofu nekk na lu dangereux mais quand même am na ay maîtres nageurs yoo xam ne nii euh, formé nañu leen ñoom ñooy surveiller foofu di di veiller ci sécurité nit ñi ba problème yi du bëri Mhm. ñu mel noonu boo leen boo jëlee par exemple booy tube bi nga xam ne mën nga koo sover nit fii ci ngor mhm. boo ko jëlee nga jox leen ko bu boobaa li mu leen di mënal du bëri parce que jee ci bokkuñu mhm. alors yàgg nga nag assister ci ay cas de noyade nan ngeen di intervenir euh, très souvent waaw euh, bon bu ñuy intervenir ci cas de noyade yi matériel la ñuy utiliser matériel la ñuy utiliser surtout YouTube yi nga xam ne nii moom la ñu am à not disposition. Mm. moom la ñuy utiliser. souvent yenn saa it ñu dem ak suñuy loxo kese ñu sauver ji victime parce que peut-être euh, matériel bi jegewuñu wala ñun ñi nga xam ni ñooy njëkk a dem kiy topp ci suñu ginnaaw di ñëw moom mooy ñëw ak matériel waaw ah, bu fekkee ni euh, nit ñu bëri lañu ci plage bi bu fekkee ni benn lañu souvent mën nañu dem ak suñu loxo kese looloot wóorul waaw mais pour bëgg a nit ki parce que euh, ki nga xam dafa nekk en difficulté temps dañ koy compter. Mhm. alors bu fekkee ni kaabu bu grave la yi tamit nan ngeen euh, di doxalee. waaw bu fekkee ni kaabu bu grave la dañuy def li ñuy tuddee bilan d'urgence vitale mooy xool nit ki gravité lap bi mu am fan la toll ak kooku ban prise en charge lañ ko war a defal bu ñu defee bilan bi ba pare ci la ñuy alerter secours yi wax leen situation bi ni mu demee léegi nag en ñoom ñuy ñëw ñu commencer suñu liggéey pour jéem a euh, sauver ki nga xam ne nii moom moo lap ba nekk ci situation boo xam ne nii situation bu grave la. Mm-hmm. alors léeg-léeg dañuy gis ne secours yi dañuy yéex a ñëw est-ce que jot ngeen am euh, genre jafe-jafe yooyu lii euh, ñu bañ a ñëw à temps. waaw léegi souvent secours yi dañuy yéex a ñëw surtout ci ci période bi mais bu fekkee ni ci été bi la comme fii à la plage de Ngor toujours am na sapeur pompier yu nekk à côté mais ci jamono bii ñu toll nii moom secours yi dañuy yéex a ñëw. Mm-hmm. Euh, ban heure ngeen di euh, tàmbali rek euh, liggéey bi ndax xam nañ ne bëri na ñoo xam te ne dañuy fajaru di ñëw plage. waaw liggéey bi mu ngi tàmbali neuf heures neuf heures ci suba la liggéey bi di tàmbali day dem ba dix huit heures ci ngoon. Mhm. donc ki nga xam ne nii dafa dafa teel a ñëw suba teel balaa neuf a jot mu sóobu ci géej gi. kooku lu ko fa dal moom moo ko teg boppam parce que maître nageur bi xëy seegul waaw maître nageur bi bu xëysee ci plage bi li ñu koy xamee normalement mooy dafa war a teg benn drapeau boo xam ne nii day am couleur bu rouge ak bu jaune mhm. loolu mooy wane ni maître nageur bi ñëw na ku mu neex mën nga dugg ci ndox bi ku ñëw fekkoo fa drapeau boobat nga xam ni maître nageur bi ñëwagul bu ma mënula fay jarul may dugg mën naa toog xaar. <laughs> du fajar gi kese ndax gis nañ ne guddi gi sax la xale yi wala sax ndaw yi euh, di gën a taamu di dem euh, ci plage waaw waaw guddi gi aussi euh, ñu ci ñu ci gën a bëri dañuy dem très souvent guddi gi sax day mel ni bëccëg bi. Mhm. loolu aussi wóorul parce que dix huit heures maîtres nageurs yi wàcc nañu dem ñibbi par exemple fii ci Ngor boo xoolee cas yi ñu fi yi fi ëpp yu fi am guddi gi lay doon bu maître nageur yi wàccee te hmm. yu ci gën a bëri victime yi day fekk ñu ñu màndi dugg ci ndox bi hmm. alors en tant que maître nageur tey jii lan génn a gën a soxla ngir mën a doxal seen liggéey ci ni mu waree maître li mu gën a soxla mooy di def ay recyclage yoo xam ne ci yu périodique lay doon pour mën a yokk xam-xamam ci li muy def pour mën a yokk xam-xamam ci li muy def parce que euh, métier bi nekkul loo xam ni la jàngoon daaw mën na bañ a valable ren wala am na ci loo xam ne nii mën nañ ko ci soppi pour gën a mën a indi ay euh, ay kii ci intervention yi pour gën a mën a gaawal intervention yi ngay def pour que victimes yi ngay am ñu gën a mën a yokk seeni chance pour ñu survivre mhm. donc euh, recyclage yooyu lu am solo la ci maître nageur yi pour ñu koy def mhm. mais aussi euh, ñu ñu di leen jox matériel yi nga xam ne nii ñoom la ñu soxla ci zone yi nga xam ni moom la ñuy surveiller loolu aussi euh, problème la boo xam ne loo xam ne la maître nageur yi soxla nañu ko mais surtout di leen former di leen former. Mhm. parce que maître nageur munoo nekk maître nageur nga ni da ngaa mën a fay rek euh, ñëw ni maître nageur laa ñu jël la ci plage ngay liggéey te amoo formation bi war waaw. Mhm. parce que yow ki nga xam ni mu secouriste bi ñëw après sax yow yaa ko ëpp solo ci plage bi. parce que boo demul génne victime bi indi ko kooku du mën a egsi du mën a jot ci victime ba koy yóbbu hopital wala di ko yóbbu feneen donc formation boobu noonu ci la ñu gën a war a te bu ñu leen former ba pare ñu leen di defal ay recyclage yu périodique waaw mm-hmm. man école bi ma nekk loolu la ñuy def ci loolu lañ la la ñuy yëngatu donc euh, mu ngi noonu. alors ban message rek nga am pour lancer euh, tout tànk yi wala ndaw ñi nga xam te ne euh, ñooy dem euh, plage yi ci période tàngoor bi lee waaw message bi may lancer ndaw yi nga xam ñooy dem ci plage yi mooy ñu gën a bàyyi xel ci les règles yi nga xam ne nii moom lañu tëral ci plage yi. Mhm. aussi ñuy dem ci plage yi nga xam ne nii autorisé nañu ko fa sangu. parce que du du du plage yëpp la ñu autorisé ko fa sangu plage mënuñu koo tere mais euh, sangu bi ak ñàkk sangu bi loolu moom la ñuy tere donc ñuy dem ci plage yi nga terewuñu ko fa sangu mais aussi li gën a am solo mooy xale yi dañu leen war a jàngal feey waaw mm-hmm. loolu mooy point bi nga xam ne nii moo gën a am solo pour wàññi lab yi nga xam ne nii moo ngi am ci Sénégal. Mhm. Ah, mooy jàngal xale yi ñu mën a fay. sëñ Maguette Ball jërëjëf may fàttali rek ne euh, maître nageur nga ci géeju Ngor nekk moniteur tamit ci école de formation euh, maître nageur de Dauphin ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ok